kon message bi lu gàtt la mooy di fàttali seen ñëpp di fàttali suñu bopp ñi leen Covid 19 bi nga xamante ni mi ngi doon Sénégal lëmbe àdduna bi jógu fi ba léegi te amul benn solution bu dul ñu dem ñàpp di vacciné wu parce que wolof dafa naan fagaru moo gën faju kon ñi lancé message solennel à l'ensemble des populations de Mbacké di leen wax nañu ñàkku ñu ñàkk wul woon ñu amoon deuxième dose ñëw jël seen troisième dose de rappel pour que li nga xamante ni mooy feebar bi mën a bañ a gàllankoor askanu Mbàkke di wax ni également ñu ngi def des mots de remerciement à l'ensemble des participants ñi nga xamante ni ñoom ñooy les partenaire de l'UNICEF di beral une mention spéciale à madame Mbacke médecin chef de district également aux représentants du préfet à toutes les bajenu gox yi nga xam ne ñu nekk également aux communicateurs traditionnels yi nga xam te ne joué ci important wàllu sensibilisation parce que sans la sensibilisation peut-être les résultats que la République du Sénégal ou bien le Sénégal a pu engranger dootul doon woon am kon ñoom bravo et mention spéciale di leen wax ni le maire et toute son équipe sont engagés en tout cas à accompagner les populations pour lutter contre ce fléau cette pandémie qui est la Covid-19 di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal une réussite totale au nom du yi di en cas souhaiter une réussite totale pour pour l'activité di sant ñëpp di gërëm ñëpp merci. donc di nuyu bàjjenu gox yi fi teew yëpp xam naa li ma ciy wax ay kàddu soññee doon rek comme ñëpp xam nañ ne feebar bi moom am na te mi ba léegi. di ci am solo ba am ci solo mooy que ne ñu ngi wax vaccination bi vaccination bi lu baax a baax la ñëpp ñoo ko war a def mais am na aussi itam itam loo xamante nii ci précaution yi la boo muy wàllum gel yi nga xam ne dañ ko doon utiliser les bonnes pratiques dafa am yoo xamante ni même bu nekkul feebar bi sax nit ki daf ko war di ko utiliser tous les jours mooy gel yi ñu doon utiliser laxas loxo yi boo demee ba ñëw sa kër yooyu yëpp dafa nekk mbir yoo xamante ni war nañ gën si sensibiliser nit ñi di ko def beneen bi li may wax mooy que ne képp koo xamante ni aussi yëg nga ne nga yëg ko am nga ñàkk koo yëg xamal ne feebar bi mi ngi fi ba léegi xanaa nit ñi dañ ko ragal a wax rek mais li ci am solo ba am ci solo ñu dem fexe vacciné wu euh, fexe aar sa bopp aaraale askan bi mu nekk loo xamante ni lu am solo la beneen bi nag gars yi léegi bala ñoo ñàkk moom dañoo waaj wala ñu waaj a voyagé su xam ñu vacciné wu si dañu soo a vacciné wu te aussi vaccination je crois lu am njariñ la donc loo xamante ni àdduna bépp njiitu réew yëpp kilifa diine yëpp ñi nga xam ne ñoom lañ yaakaar ñoom ñëpp def nañ ko kon je crois que ne keneen ku ko deful rek ñu lay soññ di la ñaan nga dem nga def ko donc boo ko defee sa askan moo tax nga def damay ñëw tout juste ci les directives de la vaccination ku war a vacciné wu je pense que léegi amatul laay ñëpp a képp ku am 18 ans ou plus da nga war a vacciné wu bu njëkk nag amoon nay contre indication mais léegi lépp lañu lële femme enceinte day ñàkku femme allaitante day ñàkku donc contre indication yooyu lële nañ ko lu jata lu mën a xam la beneen bi mooy kañ nga a jël sa première dose première dose moom képp am 18 war nga entrer en contact avec vaccination yi boo jëlee sa première dose bu fekkee Sinopharm la toog 21 jours jël sa Sino 2 am nga possibilité après Sino 2 après 6 mois jël dose de rappel dose de rappel boobu nag interchangeabilité foofu lay intervenir boo jël sa dose de rappel mën nga jël dose Johnson Johnson mën nga jël AstraZeneca mën nga jël Pfizer ku jël Johnson Johnson aussi ku jël Johnson Johnson dose unique la woon ku jël Johnson Johnson après six mois mën nga nekk dose de rappel jël Johnson 2 donc éclaircissement yooyu laa bëggoon a euh, indi ñan ñoo war a vacciné wu ak ñan ñoo war a vacciné wu waay waay wax naa ko léegi waa ñii suñu bëggoon a def jigéen ñi leen yéen jeeg ju ndaw ji sax laay waxal duñ leen bàyyi ba ngeen toll ci matu ku matu sa xalaat sa xel xalaat kër docteur maternité boo ñëwee dootal dara lu dul yàlla suñu borom génne li ci biir bi ndax dañ naan yàlla ñëwal te bul yónni waa boobee fa ngay toll duñ ne la duut li ñu bëgg a def ci yow est-ce que dinga ko tal waaye nañ leen waxante dëgg tey xalaat lu rafet ñàkku leen bu ngeen gisee ñu di ci sonn nag ñax gu wow day lakk gu tooy bu fekkoon ne bu ngeen ñàkkuwit musiba bi bu ñëwee ci yéen rek lay yem bon duñ ci sonn mais loo xam ne day wàlle mbër moo xam ne ñun ñu ngi jàkkaarloo ak moom mu dëkk ñu ñu war moom te mbër maa ngi ñuy gis te ñun gisuñu mbër mi waay waay li ñu ne moo ñuy woon mbër mi nañu ko def ngir yàlla ak yonent bi loolu dong la yéen bàjjenu gox yi nag ak relais communautaire yi relais communautaire yi sax mention spéciale pour ñoom alikaa ngi fi ñàkku nañu damay jigéen di xeexal jigéen ñi comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles mooy xale yi jigéen yi ñuy tuut tànk yi ñuy sàkku di ko yàqal seen ndey di yàq seen àdduna beneen bi ci topp mooy jigéen ñi bëgg sëy jigéenu sëykat yi di jàmbaar doon sëy bëgg sëy te yàlla taseele ne nekk góor góori góori njaayeen yi sàmba waaw sama sët yi toog tey macha allah yéen xaalis taxu leen a jóg xam-xam bi jaamu yàlla bi ngeen nekkee volontariat bi ngeen nekkee ci loolu laa ñëw di leen ci félicité di leen ñaanal yàlla ba kenn ku nekk ci yéen fa mu bëgg egg yàlla ak yonent beeg Serigne Touba eggale leen fa waa Croix-Rouge Marie Xemes moom ñëpp xam nañu waa Diourbel la Diourbel la dëkk te bi ñu defee évaluation ñàkk yi Covid à mi parcours gis nañ ni région de Diourbel daal moom kontaan ci woon parce que résultat yi baaxul woon loolu moo tax ñu jóg pour ñëw ñi nañ dajaloo ah ak ndimbalu UNICEF pour jéem a nu muy def parce que bu ñu xaymaa ñun ñu ñàkk yëpp ma ci boolewul journée tey bi ñu ngi ci fukki junni ak juróom-benn nit ñu ñàkk mais fukk juróom-benn yooyu boo ko tuddee junni ak juróom-benn day rëy mais fa ñu toll sori na par rapport ak fukki juróom benn parce que juróom benn fukki junni ak juróom benn yu tegal lañu war a ñàkk d'ici décembre deux mille vingt deux kon loolu moo tax ñu ni il faut que ñu woo askan bi parce que feebar yëpp bi koy xeex askan bee jógoon takk ak àndandoo ak ak kii de santé yi ñu ñëw boole seeni doole seen xel ak seen xalaat ba feebar yi jógee bi cité léegi far yi gis far wàññeeku na fi bis bi Mbacke presque kenn waxatul fan lu bari VIH aussi ñëpp xam nañu ne reculé na lu bari kon li ñu def ci xeeti feebar yooyu moom lañ bëgg a def lëkkaloo ak ARSEN mooy bàjjenu gox yi mooy relais communautaire yi mooy leader d'opinion yi leader religieux yi autorité administrative ak prestataire de santé ñu àndandoo ku nekk la nga war a def nga def ko léegi gis ngeen ni jeunesse baa ñoom itam ñu ngi leen di ñaax ñu xool seen naataango yi seen moroom ñu ñaax leen pour ñu ñëw adhéré euh, massivement à la vaccination mais ñuy wax rek ni que ministre de la santé na ñu gisee ba ñu xëyee ba léegi 9 ñu ngi vacciné ba léegi te arrêté jàpp naa ni bu ñu sàlloo ni dinañu am résultat d'ici deux mille vingt deux décembre deux mille vingt deux te incha li ma ko soixante six mille yooyu juróom-benn fukk ak juróom-benn yooyu xam naa ko atteindre incha allah kon vraiment ñuy ñaaxaat askan bi ñu jàppaat bu baax di remercier autorité administrative yi ndax bi Covid bi ñëwee amuñu woon guddi amuñu woon bëccëg de tout le temps ñu woon dañ leen doon woo ay trois heures du matin quatre heures du matin ñoom en collaboration ak ñoom ak Croix-Rouge ñoo doon def référence bi ci loolu foog ba point focal euh, surveillance El Hadj Diouf xam ne moo yoroon loolu lu ci bari daf ma ko oyofaloon lu bari daf ma ko le monde au passage. na ni Covid 19 jógewul fii ci réew mi mi ngi ci réew mi yaakaar naa ni doon ngeen dund ay épisode u grippe ku nekk ne dama grippe dama grippe mais grippe yi ngeen di gis fan yi depuis surtout après Magal Touba grippe yu métti yi am ci dëkk bi buñ ko waxante yàlla dëgg grippe daan na fi am waaye grippe melul ni lii. donc ñuy waxante ni leen li ngeen di gis njort nañ bu baax ni Covid la ñu leen di ni leen Covid dafa bëri ay mbubb bu ngeen seetloo bi mu nee bëri dugg ci réew mi ah, deux mille dix neuf euh, euh, muy premier vague bi bu ngeen seetloo ñëpp amoon nañ taxawaay bu ñu amoon taxawaay boobu nekkutoon dara lu dul taxawaay boo xam ne taxawaay nit ku tiit la ku nekk jël say jumtuwaay jël moyens yi nga war a jël mais bi ñu dawalee ay weer dañu gis ni ñun sénégalais nañ ko foogee woon ni noonu lay reyee tubaab bi noonu lay reyee chinois yi noonu lay reyee en tout nit ñu weex yi reyewuñu ñu teggi suñu tànk ba ñu teggee suñu tànk ñu dund deuxième vague deuxième vague bi moom la ñuy wax delta muy tabaski daaw yàlla nañu um ku ci amul mbokk am nga ci dëkkandoo am nga ci xarit tabaski daaw li ñu dund fii ci mbas mi yaakaar naa ni fàtte xaju fii ku nekk am nga ci kaa boo xamante ni jege na la bu dul sa dëkkandoo sa mbokk la wala sa xarit la donc kon booba noonu dafa demoon soli mbubb boo xamante ne mbubb bu gën a ñaaw bi mu soloon bu njëkk ba la vague boobu jàll man ba tey mi ngi ñëw nag di sol ay mbubb yu bokkul ñun waa Sénégal ñu ne ñu naagu ndax fi yegg ba naagu yeggaguñu fa dafa fekk ni fan yii Covid bi mbubb bi mu sol dafa nekk mbubb bu leer waaye su solaatee mbubb bu metti ñëw fii maara day taali dina metti loo ci ñun ndax tey jii dañ ne bu ñu amoon immunité collective immunité lan tey jii bu ñu góorgóorlu woon ba téeméeri nit yooyu jël juróom-ñaar fukk ya ñàkku ca mën nañu jàpp ni Covid bi mbubb mu mën di sol ñëw fii du ñu mënal dara mais fii ci Sénégal en dañu jàpp ni vaccination bi eggagul sax 20 pour cent fii ci mën nañu téye chiffre yi yoo juróom ya wala ñeent ya ñoo ci boo jël ba ngeen déggee riirum Covid ba tey téeméer boo jël juróom ya wala ñeent ya ñoo ñàkk fii ci euh, région de Diourbel ak nag lim ndaje yi di bëri bëri bëri yëpp. docteur Mbacke wax na leen léegi ne leen donte euh, district sanitaire bu Mbacke jiitu na ci ci ci région bi mais bu mu tax ngeen naagu parce que nee leen war na ñàkk juróom benn fukki junni nit ak ak ak lu teg mi ngi nakkagul fukki junni ak juróom benn ku ñu nakkaloo juróom benn fukk pour yéen ñëpp ngeen aaru ay junni ngeen am ci fukk ak juróom benn donc même bu ngeen rawee rawoo leen kenn kon jóg leen vingt quatre pour cent donc kon ñu ngeen jóg ñun ñëpp ñu jóg taxaw dëgg la ñun ñoo nekk ci kanam waaye ku lay wax sangul sa taar la bëgg